أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ñu ngi ñëwaat ci sunu dars usulu salaasa ñu tolloon ci aaya bi sunu boroom subhanahu wa taala di wax inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila firauna rasula fa asa firaunu rasula fa axaznahu axdan wabila ca aaya boobu lanu yemoon tey ñu war koo tàmbali sunu borom subhanahu wa taala di ñu wax ca aaya boobu man yàlla tabaraka wa taala maay ki nga xam ne maa yónni yonent yi ci yéen ay ala irsaali rusul inna man yàlla arsalnaa yónni naa ilaykum ci yéen rasulan ay yonent kon ndeke yonent yi ki leen yónni mooy yàlla baat bi yàlla ne inna mu ne damir la damir boo xam ne raajiun ila allahi inna mooy man yàlla subhanahu wa taala mu ne wa haada damirul mu'zam li nafsi baat la boo xam ne yàlla daf ko adresseel boppam su fekkoon ne dama ne dañu ne inna man mi ba ma doon wax man su ma ne inna kon day nekk nun ñun ñëpp waaye bu dee yàlla la duñ wax nun yàlla man yàlla ndax yàlla moo màgg moo toll noonu yàlla ku màgg la moo tax damir boobu damir la gu koy màggal moom ci boppam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu subhanahu wa taala moom yàlla mu ne arsalna yónni naa mu ne kazalika haada damir mu ne ba tey foofu am na damir boo xam ne al azama guy màggal la wa maana arsalna ba asna hu wa awhayna ilayhi man yàlla maay ki tànn yonent yi maay ki tànn yonent bi ma yónni ko ci yéen ñii maay ki tànn yonent yi yónni leen ci yéen maay ki tànn yonent bi yónni ko ci yéen ñii waaye yemuma rekk ci tànn ko yónni ko waaye balaa ma koy yónni dama ko dee dama wax ak moom dama waxyu dama ko waxyu dama ko jox sama kàddu ma xamal ko ko ba pare ma ne ko kàddu gii ma la jox demal nga jottali ko nit ñi sunu borom ne subhanahu wa taala inna arsalna ilaykum rasulan maay ki leen yónnee ndaw ndaw loolu ilaykum ci yéen ñii la jëm yéen ñan yéen ñan yéen doomu aadama yi kese la ak jinne yi yaa maasaral jinni wal ins yéen nit ñi ak jinne yi maan yàlla maa leen yónnee ay ndaw wax jooju yàlla wax ilaykum mu ne xitaab kàddu la goo xam ne li jamii nnaas li anna risala hada rasul ama li jamii nnaas ila an taqumu saa nee na mboolem nit ñi la ndax wax jooju yàlla daf ko wax adressé ko mboolem nit ñëpp ndeke yonent bi yàlla yónni ci ñépp la ko yàlla yónni nit ñépp ku xees ku ñuul ku jaune ku weex ba yowmal xiyaam góor ak jigéen mag ak ndaw ku weex ak ku ñuul ku xonq ak ku weex yàlla dafa yónni ci ñoom seyduna muhammad seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni na ko rasuulan muy ndaw muy yónent nu mu tudd muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni kon du ku ndaw kilifa su màggee ba tànn kenn yónni ko kooku di dem fenn ku ndaw la walla ku tuuti lay doon président su yónnee kenn ne ko demal place sàngam nga daje nit ñi nga wax ak ñoom kooku waa dëkk ba buy ñëw benn nit moo koy teer walla nit ñu bëri lu tax ku mag la ndax kilifa moo koy yónni kon nag yàlla bu jëlee ku toll ne Seydina Muhammad yónni ko kon yàlla yónniwul ku ndaw yàlla yónni na ko rasulan muy ndaw shahidan alaykum ay indallahi muy koo xam ne daf ñuy seede ëllëg fa yàlla subhanahu wa taala yawmal qiyamati bi annahu ballagakum risalat allahi wa aqama alhujja alaykum kama qala taala yàlla jël na yonent yónni ko yonent bi ñëw ba jeexal dem ëllëg yawmal qiyaam su yàlla woowee nit ñi di leen laaj mu ne yéen lu taxoon jaamuwu leen ma nit ñi ñu ne ko ah yow yàlla ñun nan lañ lay jaamoo ñun xamuñu lu ñu lay jaamoo ñun xamuñu lu ñuy def xamuñu lu ñuy def xamuñu lu ñuy bàyyi walla mu ne ah kay xamoon ngeen lu ngeen war a def xamoon ngeen lu ngeen war a bàyyi xamoon ngeen ne da ngeen maa war a jaamu nit ñi ne yàlla naka yàlla ne yónni woon naa yonent ci yéen nit ñi ne yàlla ñun gisuñu kenn kenn ñëwul yàlla mu ne ana yonent yi ana muhammad mu ne maa ngi ni mu ne kaay muhammad ñëw taxaw mu ne ko ñii ñii waxoon nga bi ma la yónnee demoon nga wala demoo mu ne ah kay yàlla mu ne ah ñii ñii de dañoo weddi nee nañ gisuñu la muhammad daal ne jóg taxaw ne ah kay eh eh eh xool leen ma eh ah yéen ngeen ne lan nit ñi nag dootuñu am lu ñu wax ñu ne palaj noppi muhammad daal ne yàlla ñii ah xam nga ah xamu leen ni ne eh xuma woon bàyyi leen bokkaale ba ma ñëwee ca màkk ah ba ngeen may génne màkk ah ba may xeex ak yéen Badr xeex ak yéen Uhud dàq leen Hunayn ni génne leen Xaybar ngeen ne xamu leen ma ah ñu ne palañ ndeysaan daa noppi ñu ne palañ noppi nit ñi daal di muuma dootuñu am lu ñu wax yàlla nee na rusulan ay ndaw lañ yoo xam ne mubashirin wa munzirin ay yonent la yoo xam ne yàlla moo leen tànn seen lim nekk cent vingt quatre mille yonent cent vingt quatre mille yonent yoo xam ne yàlla leen yónni ñu ñëw ci nit ñi lan moo leen indi mubashirin wa munzirin mubashirin dañuy bégelaate ku topp yàlla dugg aljanna munziri ne dañuy xuppaate ku mooy yàlla dem safara ñoom yonent yooyu ñu ñëw li alla yakuna linnaasi ala llahi hujja baada rusul ngir ëllëg nit ñi duñ am lay yàlla lay ci kanamu yàlla ëllëg ginnaaw yonent yi ndax yàlla boo woowee nit ñi di leen laaj rek nit ñi bu ñu weddee rek yàlla woo yonent yi ana Muusa mu ne maa ngi nii mu ne kaay taxaw ana Suleymaan mu ne maa ngi ni mu ne kaay ana Isa mu ne maa ngi nii ana daawuda maa ngi nii ana nuux maa ngi nii yonent yëpp ñëw taxaw raw seen seen nit ñi yàlla yónni leen taxaw yàlla mu ne ana waa banu israil ñu ne ñu ngi nii yàlla ne Musaa kaay ñii nee nañ ñëwoo a Musaa na xam ngeen ñu ne daal di noppi ana nasaraan yi ñu ne ñoo ngi yàlla naan Isa waxal Isa mu ne ah gaa yi ñu ne waaw ko nit ñi daal ne palam noppi dootuñu am lu ñu wax ndeysaan ndax lan ndax yonent yi ñëwoon nañ leeral nañ jàngale nañ ba dem mu ne fala ahad yowm alqiyama yaqulu ana lam adri anni maxluqun lil ibada yowm alqiyama kenn du taxaw naan yàlla wallahi man xaw ma woon dama laa war a jaamu yàlla man man xaw ma ko woon de ne dama laa war a jaamu xaw ma ko xam nga ko ndax yonent yi ñëw nañ wax nañ xam nga ne da ngaa war a julli da ngaa war a woor da ngaa war a jàng alquran da ngaa war a baax da nga war a bàyyi fen da nga war a bàyyi sàcc da nga war a bàyyi tooñ yonent yi ñëwoon nañ wax nañ ko tey jii nga taxaw fii naan Samba ak Demba nangam ak nangam pititita tututututu xamoon nga ko ndeysaan yàlla man xaw ma woon ne dama laa war a jaamu ana lam adri maza yajibu alay man xaw ma woon lu ma war man xaw ma ko woon man dama yaakaaroon ne rek yàlla daf maa indi ci suuf pour may football pour ma nekk mbër pour may simb pour ma nekk déedéet waaw déedéet waaw walam adri maza yahrumu alayya xaw ma woon ne lii araam na ci man xaw ma woon ne lii dagaan na man xaw ma ko woon dama doon def rek yàlla mu ne laa yumkin an yaqula hada ëllëg yowmal xiyaam kenn du am loo wax kenn du am lay doo mën a weddi yàlla yónni na ay yonent yonent yi ñëw nañ jàngale nañ leeral nañ waaraate nañ seen mission jeex na dem nañ bàyyi la fi soo jaamoo yàlla sa bopp soo jaamu yàlla ëllëg dinañ la laaj mu ne li anna rusul alayhi salatu wasalaam alayhim salatu wasalaam qad balagathum ñoom de dëgg-dëgg jottali nañ wa hadihi al umma al muhammadiya tashhadu alayhim ëllëg yowm al qiyaam buñ demee yeneen xeet yi sax buñ buggee weddi xeetu muhammad mooy taxaw di dëggal yonent yi liñ waxoon kon ku jaamul yàlla mbokk yi ëllëg di nga am jafe-jafe di nga am problème bu rëy a rëy a rëy a rëy sa digganteeg sa boroom ndax yàlla wax na jeex na tag yeneen di leeral nañ man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ku mu neex gëmal ku mu neex weddil waaye bis boo weddee boo dajeeg yàlla di nga am problème mbokk jullit yi sunu borom nee na wa kazalika jaalnaakum ummatan wasata li takunu shuhdaa ala nnaas wa yakuna arrasulu alaykum shahida daal ne naka noonu laa yónnee woon yonent yi ma def leen yéen ñi ngeen nekk xeet ummatan wasata xeet wu diggu dóomu li takunu sohada alam nas ngir ëllëg yowmal qiyaam ngeen seede nit ñi waaye wa yakunu rasulu aleykum shahida bu ngeen seedee ba pare yonent bi nag taxaw seede leen yéen tamit nag bu ngeen taxawee ne yàlla dëgg la de Moussa mi waxoon na Isa waxoon na Suleymaan waxoon na Ibrahima waxoon na Nuux waxoon na ah yàlla ne yeneen xeet yi kon dégg ngeen xeetu Muhammad moo leen seede yàlla daal di jël xeet yooyu dugal safara léegi nag daal ne xeetu Muhammad xeetu Muhammad kaay leen xeetu Muhammad taxaw xeetu muhammad daa taxaw yàlla mu ne muhammad kaay seede leen ndeysaan mbokk yi fa hadhihi l umma fa hadhihi l umma xeet wii tashhadu ala al umami sabiq yowma alqiyama xeet wii di xeetu muhammad day seede yeneen xeet yi yowma alqiyama ñun ñii ñooy seede yahuud yi ñun ñii ñooy seede nasaraan yi ñun ñii ñooy seede yeneen xeet yi jiitu woon ñun bu ñu seedee ba pare nag yàlla ne muhammad kaay seede ñii nag yow tamit nag muhammad tamit nag ñëw nag ndeysaan di ñu seede waaw kon li anna allaha qassa alayna naba al umamu saabiq lan moo tax ñun ñi ñu mën a seede yeneen xeet yi lu tax lu tax ndax yàlla nettali nañu ci alquran ne yeneen yonent ñëwoon nañ yàlla yónni leen ci xeet yooyu ñun jàng nañ ko looloo tax ñun ñu mën a seede ëllëg yeneen xeet yi ñu seede leen allahu akbar mbokk yi kon mbir maa ngoog ñun dañuñ seede ëllëg li yonent yi waxoon ci seeni nit mu ne kullu hada arafnaahu min alkitaabillah loolu yépp ñu ngi ko xamee ci téere yàlla bi téere bi nga xam ne laa yaatihi albaatil min bayni yadayhi wala min xalfi tanzilum min hakimin hamid téere bi nga xam ne caaxaan du ko jóge ndeyjoor du ko jóge càmmoon du ko jóge ci kaw du ko jóge ci suuf waaye loolu min hakimin xabir wa yakunu rasulu wa huwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaykum ya ummata muhammadin shahida yashhadu alaykum inda allahi annahu aqama alaykum alhujja wa ballagakum alrisala wa nasahakum fi llahi fala hujjata li ahadin yawma alqiyama an yaqula ma balagani shay'un mimma jaani min nazir mbokk jullit yi nañu yëg ne ëllëg yeneen yonent yi danañ ñu seede danañ seede yeneen xeet yi bu leen muhammad alayhi salaatu wasalaam seede ba pare ba ëllëg kenn ci ñoom du mën a taxaw naan dara ñëwul ah xamuñu ne yàlla moo leen di laaye biir kenn ëllëg du mën a weddi ne yeneen yonent yi ñëwoon nañ yowmal qiyaam naan ñun de dara ñëwul ci ñun maa jaana min nazir waaraatekat ñëwul xatta alkufaar même yéeféer yi yaarifuuna indama yaquluuna fi nnaar kullama ulqiya fiha fawjun saalahum xasanatuha alam yaatikum nazir yéeféer yi sax xam nañ loolu buñ duggee biir safara ala nee na saa yiñ jëlee benn groupe saa yiñ jëlee benn groupe ci yéeféer yi sànni leen ci biir safara da ngay dégg ñu naan malaaka yi naan leen alam yaatikum nazir ndax amul yonent bu leen doon waar nga dégg ñu naan qaalu bala qad jaana nazirun fakadabna wa qulna ma nazzala allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir nit ñi buñ duggee safara ak safara ni mettee yàlla di leen lakk malaaka yi jékki-jékki ne leen yéen waaye yéen yéen lu ngeen doon xullee di ba dugg safara xanaa yéen amuloon ay yonent yu leen doon waar nga dégg ñu ne ah kay wallahi yonent yi ñëwoon nañ waaye ñun dañoo dëgëroon bopp yonent yi ñëwoon nañ waaye ñun ñii dañoo dëgëroon bopp ñu topp ci fuural yi topp ci xumbal yi topp ci làmb yi topp ci soirée yi topp ci ndaje yi topp ci jigéen ñi topp ci góor ñi topp ci fecc mi topp ci musique bi rek ba dee ñëw fekk ñu ci lii na gis nga moo tax képp ku repp ba bàyyi lu yàlla wax ak yonent sooy dee rek da ngay dem safara sikki nekku ci kon mbokk yi ñëw leen ñu góor góorlu ñëw leen ñu topp suñu boroom ñu ne yaqulu rusul yaquluuna lir rusul nit ñi danañ wax yonent yi antum fi dalalin mubin yonent yaa ngi taxaw di waaraate jàngalekat yaa ngi taxaw di waaraate nga dégg nit ñi naan waay ñii dañoo réer waay ñi xamuñu dara fa hum yukazibuuna rusul ñu taxaw di fenloo yonent yi wa yudillunahum ñu leen di réeral ne yonent yi dañoo réer tey loolu moo am nit ñi dañuy taxaw di waaraate di jàngale nga gis ku xamul dara jóge fii naan waay yow da ngay taxaw fii di déglu waay ñii nga xam ne dañoo sànku ñi nga xam ne dañ leen dañoo réer téere yu weex lee leen téere yu weex yee leen réeral téere yu weex ak téere yu ñuul ak téere yu xonq daa am téere bu xonq amul téere bu weex amul xam nga lu am mbir mi du téere bi mbir mi du téere bi de mbir mi xam nga lan la lañu bind ca téere ba alxuraan feuille bi mu weex ak mu xonq ak mu ñuul ak mu bulaayam du feuille bi du téere bi xam nga lan la mbind ma la ca nekk loolu moo am importance te mooy kàddu yàlla kàddu yàlla nag ku ko dégg bañ ko def bañ ko dëggal ëllëg yàlla sunu borom subhanahu wa taala dana jëflante ak yow mu ne ba ma yónnee yonent yi yonent yi ñëw jàngale waaraate alayhimu salaam mu ne firaw naa ngi nii wa firawna firawna mi ngeen dégg wal malik al jabbaar fi misra allazi iddaa ar rububiya firawna benn buur la woon bu nekk dëkk bu tudd égypte mu am doole am doole am doole am doole am doole ba ne man maa yàlla ku ma déggati nga ni yàlla am na dama lay rey man mii maay yàlla ana rabbukumul aala yàlla nee na fa axasnaahu wa junuudahu fa nabasnaahum fil yammi allahu akbar firaaw ne ne maay yàlla yàlla ne ko ah yaa yàlla mu ne waaw maay yàlla yàlla ne ko baax na yàlla jàpp ko xam nga moom kese la waroon dekk déedéet yàlla ne ko kon kon day nekk lu ndaw duma la jàpp yaa kese ndax li la reewloo ba nga bew mooy sa soldaar yi sa armée bi sa militaire yi sa gendarmerie bi sa police sa douane sa armée de l'air sa armée de mer sa armée de terre moom nga gis moo tax nga rakkaaju ba nga ne yaa yàlla danaa la jàpp yaa ñooñu ñëpp ak char de combat yi ak avion yi ak bateau yi sous-marin yi yéen ñëpp danaa leen jàpp danaa leen labal ci géej gi yéen ñëpp ngeen dee jant bi xëy fenku sow ñëpp xëy liggéey ngeen xam ne nga xam ne yow doo yàlla yàlla noonu la ko defee yàlla da koo otal otal xam nga loolu ñu daal booy naan otal ko otal ko boo dëkkeek benn booy bu réew ci koñ bi mu lay tooñ nga bëgg ko dóor xamoo noo koy dóore dañ naan booy ottal ko ba booru géej ottal ko booy nga fekk ko mu toog nga ne ko booy kaañ naa ni ataaya géej mu topp la nag defe ne day naa ni ataaya fekk da nga koy dóor yi loolu mooy ottal yàlla dafa ottal firawna waaw mu bàyyi firawna mu ne Moussa génnal Moussa ne bu ma génnee yàlla firawna daf may topp de yàlla mu ne Moussa génnal génnal demal demal rek Moussa mu ne yàlla Firawna daf may topp yàlla mu ne ko bu la toppee ma topp ko allahu akbar Moussa daal di génn rek Firawna jël avion yi jël char de combat yi jël armée bi départ topp Moussa topp Moussa Moussa di dem di dem di dem di dem Firawna topp ko Moussa di dem ba Moussa jàkkaarloo géej gi nag Moussa mënatul dem nag Moussa mu ne yàlla mënatumaa dem de ñi Moussa àndaloon naan tey ñu dee firaw naa ngi ñëw mu ngi nii inna la mudrakuun way danañ ñu dab yàlla mu ne Moussa waxal gaa yi kalla inna ma'i rabbi déedéet yàllaa ngi ànd ak ñun yàllaa ngi ànd ak man Moussa yore yat bi taxaw firaw na taxaw fële ci ginnaaw nit ñi nekk ci digg bi Moussa taxaw yore yat bi yàlla mu ne ko Moussa jëlal yat bi nga dóor ko ci géej gi Moussa jël yar bi du ko- di ko dóor ci géej gi nit ñi àndoon ak Moussa naan Moussa dafa dof Moussa dof na au lieu yar bi mu dóor ko Firawna booy xeex ak nit nga yor yar ah nit ki ngay dóor yar bi wala géej gi ngay dóor yar bi géej gi. nit ki kii nga naan.
ah nit nit ki.
ki ngay xeexal ngay dóor yar bi wala géej gi dina xeexal ki ngay xeexal ngay dóor yat bi nit ñi naan Moussa lu la géej gi def ba nga koy dóor firaaw na nga war a dóor yat bi ngay dóor géej gi lan la la géej gi def fekk yàlla moo ne ko fa awxaynaa ilay an idrib bi asaaka al bahra Moussa mu ne ah yàlla mu ne ko dóoral géej gi yat bi Moussa jël géej gi jël yat bi daal di koy dóor ci géej gi rek géej gi daal di ubbeeku nga gis vague yi toll na ay montagne ubbeeku gaa yi di gis ni suuf si wow géej gi ubbeeku ne nii yaatu nekk benn yoon yàlla ne Moussa waxal waa banu Israila nañ jàll ñi nga àndaloon wax leen ñu jàll gaa yi jàll jàll jàll ba jeex Moussa bëgg a tëj géej gi jàpp ci ñaari cat yi naan "Uh, uh," naan day tëj géej gi yàlla mu ne ko watrukil bahra rahan bàyyil géej gi demal sa yoon bàyyil géej gi mbir mi du sa mbir Moussa demal Moussa daal di rox moom tamit dugg ci yoon bi départ Firawna gis Moussa fi mu jaar ci digg géej gi moom tamit mu ne armée yi adamo song leen rek gaa yi départ këj këj këj këj këj këj départ Hmm. yàlla bàyyi leen bañ egg ci digg géej gi yàlla mu ne ma ub géej gi seen kaw ma ub géej gi vague yi yëkkati leen ba ci kaw di leen tóoj bëm ñoom ñoom ndoxum xorom mi daal di dugg ci ñoom ñu naan ba ni këj ñëpp dee Firawna yàlla mu ne ko yow moom danaa la rëccal yow yow danaa la rëccal jën yi requin yi balañ yi du ñu lekk sa yaram danaa la bàyyi ba nga génn ci biti ñépp àdduna bi dinañ la tiim nga jaaxaan sa biir bi naan ndoxum xorom ba ni këcc sa bët yi buqeeku nga dee nit ñi tiim la ñu xam ne doo yàlla yaa ne woon yaay yàlla waaye di nga xam ne doo yàlla moo tax ñi nekk fi naan ñun ñooy yàlla maay yàlla jëfu firaawna ay sëtu firaawna lañ ndax firaawna moo ne woon ana rabbukum la ala koo fi dégg mu naan yàlla yàlla sëtu firaawna la ndax loolu firaawna ko waxoon ay sëtam ñoo fi nekk tey naan ñun ay yàlla lañ waaye bàyyil ba yàlla jàpp leen ni mu defoon seen maam rek la leen def fa nabasnaahum fil yammi fa huwa mulim kon firawna ngoog firawna moomu moo doon buur benn dëkk bu tudd Égypte waaw yàlla nettali nañu ay mbiram ci alquran suñ fa delloo danañ gis mbugal yi ko yàlla mbugal naam kon nag mbokk yi ñoom mbokk firawna yooyu ëllëg yowmal xiyaam balaa ñu dem yowmal xiyaam ci biir barzax fi ñu leen suul yàlla dina leen gaaral safara annaaru yuraduna alayha guduwan wa asiya suba ngoon danañ leen gaaral safara ci biir barzax fa ñu nekk balaa yowmal xiyaam lu ko waral suba ngoon mu ne loolu dalil la buy wane ne ëllëg yowmal xiyaam am na mbugalam bàmmeel waaw mu ne ëllëg yowmal xiyaam nag bu ñu dekkee yàlla mu ne wa yowma taqumu saa adxilu ala firawna ashad al azab ëllëg yowmal xiyaam yàlla mu ne ana waa kër firawna ñu ne ñu ngi nii taxaw yàlla mu ne malaaka yi jàpp leen ñoom ñëpp ngeen dugal leen ci biir safara ci mbugal bi kon mbokk jullit yi nañu góorgóorlu ñu xam ne yàlla subhanahu wa taala moo leen mbugal ñoom ñooñu di waa kër firawna an allaha agraqahum yàllaa leen labal ah wa mahahum an axirihim fi lahzatin wahid yàlla moo leen labal première première groupe bi ba fin ba ñëpp la yàlla labal ñoom ñëpp yàlla moo leen jële ci kaw suuf kenn ci ñoom desatu fi ñaareel bi mooy annahum yu'azzabuna fil barzaq yàlla ngi leen di buggal instant bi ci barzaq ñoom waa kër firawna ba yowmal xiyaam jot ila an taqumu saa asaalis ñetteel bi annahum ñoom isa bu isu yowmal qiyaama yadxuluuna ashadda al azab ëllëg yowmal xiyaam buñ dekkee fi gën a tar ci safara la leen yàlla di dugal wa kazalika man asa muhammad képp ku mooy yonent yàlla muhammad ëllëg yowmal qiyaam yàlla fi gën a tar ci mbugalum safara la lay dugal kon doomu ndey yi nañ góorgóorlu ñu gëm sunu borom ñu roy sunu yonent képp ku toppul yonent yàlla muhammad ëllëg yowmal qiyaam yàlla dina la duma yàlla dina la duma yàlla dina la mbugal mu ngoog sunu borom ne axzan wa biila mu ne shadidan qawiyan yàlla moo leen mbugal mbugal mu metti mbugal mu tar wa kazalika axzu rabbik ida axada alqura wa hiya zalima inna axzahu alimun shadid naka noonu la yàlla tabaraka wa taala di jàppe tooñkat yi dëkk boo xam ne dañoo tooñ yàlla su leen yàlla jàppee rek dana leen jàpp jàpp bu metti mbugal leen fa hadihi al aaya aaya yi ñu leen doon wax dalilun day tegtal ala minnatillahi alayna bi irsaali rusul rasul muhammad xéewal gi ñu yàlla defal ci yónni yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ñun ci mbooleem gox yi ci mbooleem jamono yi ci mbooleem nit ñi ak ginne yi kon loolu na leer yàlla yónni yonent bi yonent bi ci ñëpp la ko yàlla yónni ci ñu weex ñi ci ñu ñuul ñi ci ñu xonq ñi ci ñu zone yi ci nit ñi ci jinne yi ñoom ñëpp la yàlla yónni yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam kon mbokk yi lii moo nekkoon sunu dars tey yàlla yàlla def ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu